soppe xarit yi mbokk yi am di jàmm yi comme ni ñu leen ko waxee woon rek euh, bi ñu jógee kër Serigne Cheikh Rokhaya Fall ñëw ci kër Serigne Cheikh Fall Mboor ñu fekk ko ci digg bi mu at bi mu toog macha allah. ku ne xam na ni liggéeyu waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall da ciy feeñ bu baax a baax a baax ñu gën cee ràññee yóbbu ndogu Serigne Cheikh Fall Mboor euh, ndax na noo xam euh, sababu yóbbu ndogu. sababu ndogu bi xanaa sababu bu jiitu koor di jur ko. ah moom war a koy jiitu. koy jiitu foo dee gëmatul ndog rek xam war nga xam war nga xam ne ndogoo tax kooram. ñooñu ko dama wax ak ñoom dara ndax jote ma ak ñoom dara mbubboo la ak doon la daa bokkul. waaw ci yoon maam Cheikh rek yoon yëpp am loolu kuy tuddoo la ngay tuddoo doolu ko. loolu moom xëy ma ko dëdd suñu wàll doon togg yi yàlla ko moom lañ koy delloo. te alam yaxlam bi laa yaraa daal mooy li jërul ngay xayma yàlla mi konte moom xam na ko ne sa jëf kon sëriñ bi ihimaloo fa sa yar la xamaalakum rasuloo de moom la waaw ñu dégg ci sa biir kàddu nga ni ab murit ab jullit ab murit ab Baay Faal wéeroo ko jik waaye ab jullit ab murit ab Baay Faal ama ko jik ndax ndax bu amee bu sëriñam laajee mu joxe bu wéree bu sëriñam wootee mu dem Euh, kaddu yooyu doon kaddu yoo xamante ni si dañ ko bàyyi xel ci yow lool tey nag sunu émission jataayu géew ndaanaan yi ñu ñëwoon fi rek sëriñ bi ginnaaw déggee nañ ci yow kaddu yooyu noonu dañuy gàttal ndax ku ne xam na ni ñu ngi ci wàccaayu yóbbu ndog yi ñu bëggoon tàllal suñu loxo rek euh, déedéet da ngaa wax loolu da nga koo laaj da nga ne ab jullit di murit wér ko jik wërsëg ko jik euh, fan bu gudd ko jik dama la ne murit mooy jullit pilis Baay Faal mooy murit pilis gannaaw ku ci ne lam pilis na caa pilis waaw moo tax la mën la fan guddoo ko jig wér ko jig wërsëg ko jig fan guddee tax bu a wujji wéree tax bu ñu laajee nga mën a joxe wërsëg wërsëgee tax bu ñu laajee nga mën a joxe wéree tax bu ñu wootee nga mën a wujji fanu guddee tax a fekke lu bari waaw ndeysaan kon soppee xarit yi bokk yi am jàmm waaw nga ne nag ñi bu boo yoon sànkar moom bu ne la fexe ba xam am fu lay wut doom bu sànkar rek gannaaw ëllëg yi bay tool yi ñoo saxum ñax nag foo ko tool yi tilim amee daaw kon lan ngay wax sëriñ dañuy sëñ bi mu yàgg fi loolu te wér sëñ bi li mu wax mooy li am ab sëriñ du wàññi ay bool yàllaa ko fi indi yàlla lañ koy yët yàlla min koy yët xam na bool naka lay dundee ndax euh, euh, Cheikh Ibra rek lay liggéeyal moom moom sàkkuwul dara lu dul ëllëg ngërëmul Cheikh Ibra te loolu la fi way juróom wa sëñ Aliou ba woon loolu la fi maam Cheikh Ibrahima Fall maamam ja ba woon loolu lañ ko fi bataleel Fall loolu lay dox kenn du yab Cheikh Ibra di ko jaar ci jëmmam ji xam na ki mu doon xam na li mu li mu doon moo waral sëriñ bi dañoo ñëwoon ngir siyaare ko rek waaye siyaar bi weesuwul di la ñaanal nga yàgg fi lool ci barkeb maam Cheikh Ibra Euh, sunu émission jotaayu géew ndaanaan yi ñu ñëwoon fii kër Serigne Cheikh Fall Mbor ànd ceeg sunu site internet 28 pro ñoo ngi siyaar ñëpp di dégg jotaay bi la tudd gannaaw da ngeen di laaj rek ma danaa leen laaj ba xam ñi ngeen leen daan waaw Serigne bi ñun moom daanagun kenn waaw jotaayu géew ndaanaan yi moom Serigne bi rek dañ la cee bëgg a boole moo tax Serigne bi <laughs> ñu ñëwoon fii am na solo lool yaay yàgg fi tawéer rek. waaw ñu wax Gora Ndiaye ndaanaan ko dem na ci rajo Cheikh Aliou. Gora Ndiaye ndaanaan waaw dafay mos a dajeeg Aliou ah, dafay a dajeeg Ama Balde. ma ne ko gannaaw ndaan nga ndaanaan nga damaa bëgg nga fi waxoo kii mu ne danga ma seetal ma keneen seetal ma keneen. <laughs> waaw ndeysaan ah, dégg ngeen sëriñ bi ah, nga des ñëwee Kafre yaakaar naa mbarasi ko bu daana lee mu naat ci buntu dex ñee bu ñëwee ci xuus gala jëm li sëriñ bi wax am na solo lool tubaarikàlla macha allah day tàllal loxo rek sëriñ bi daal ñaan na nga fi yàgg lool man de sab soppe laa moom <laughs> dox leen dem ca kanam dox leen dem ca kanam